bal rey na ku ne. waa léegi jugal ku ne waa léegi jugal. dañuy ànd de. fu man fu ma jëm. Marème di ma gunge ba ci bunt bi laa la wax kooku nag dëgg-dëgg tàbbi ba pare. waa léegi dama ne mën ngaa jug wala mënoo jug. sécurité. mën naa jug waaye rek may gunge de. jugal. dénk ma dénk ma yàlla sécurité. dëgg naa la yàlla jugal. man ni mës naa ko gis. dëgg ma fàttaliku mën naa ko sa telefon sa téléphone jëlal bu ko fi fàtte. boo dégg ñu naan la géwël yi géwël géwël yi njëkk yi duñ géwël de waaye dañ naan géwël bu moo daan jiitu ca kanam waaye bii ñoo jiitu ñu nekk ci ginnaaw waaw ba tey benn la rek ankay fa ay dara lu roowuñu déedéet Wally Seck ak Pape Diouf déedéet xeelu ma bokk ak Sénégal ay waay alors merci beaucoup Ñuuxit merci beaucoup Cokko merci beaucoup Maman Ndiaye mu nekk nag ñett ñoo xam ne vraiment nii la ñu nee nañ daal ñoom yéen la ñuy bëggal yéen gan yi euh, lan nga ci mën a wax tuuti tuuti rek ci ñi liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def nii. waaw xam nga lii comédie bu comédie bu baax la ndax. Ah. nit ñi mën nañ cee ree jàngale ci dara. Ah. donc lu lu positif la daal bon maintenant nag xam nga man sama histoire ak art dafa xaw a. <laughs> Mm, dafa bokk ci yi ma teel a def lool. ah ndeysaan. waaw ah, ba mënoon cee sori lool. waaye nag ginnaaw barab ba ma yaroo yooyu xawu fa. ñu teel ma ca génne waaye wax dëgg yàlla moom. Ah, waaw j'ai joué des des des troupes des pièces. à un moment donné j'étais même champion régional de du Sine Saloum. ah bon pour ce qui le théâtre scolaire. Ah, ok ok loolu révélation la. lu intéressant la quoi la. alhamdulilah ñoom dañuy reeloo nit ñi danga nga ci mën a jàngale dara. ndeysaan waaw mais leçon yi di ci biir. d' <laughs> accord euh, Mboup maa ngi gis yaa ngi seetaan yooyu itam di ree xale yi. waaw xam naa dese naa dégg bu baax nag liñ doon wax. waaye ci forme bi moom mën a cee jàngale bu bari xam nga mbatitu Sénégal daan nañ ko def ci bu yàgg sax ci ay léeb ak xeet yi ni mën a jàngalee dafa bari mhm. nga xam ni nit ki l' essentiel li nga soxla ci mu am ko ci bagage ak dana ko dana ko mën a am dana ko mën a yóbbaale. Mhm. di ko léebal. ak yu deme nii mënees na ci jàng nga xam ni nit ki dana nekk un peu à l'aise liñ koy waxit dana ko frappé parce que euh, boo defee ay gëstu ci wàllu euh, neuroscience un peu mm-hmm. gis ni moyen la bu gaaw ci nit ki nga bàyyil ko dara dëgg la mu bàyyi ko dara donc kon bu ñu xoolee xis message bi muy lu am solo rek. Mhm. nit ki man cee tonawoo rek loolu dana dana am solo. macha allah alhamdulilah nag bi tey ginnaaw yow artiste nga. waaw maa ngi dégg Pape Sané sànq muy wax mel na ne moom itam affaire yi intéressé na ko. waaw man je crois que c'est bien que Sénégal mu am ay séries yoo xam ne. Mhm. dañ ciy def le récit des fraternités confrériques. ok ay relations yi amoon diggante mag ñu baax ñi seeni i taalibe nu ñuy former seen nit. Mhm. ñu di ko teg ci télé yi yaakaar naa lu mel bu ñu ko doon def. moo gën mbappat mi ndax Sénégal yi dañ ci mën a jàngat eh, defe naa eh, message bi jàll na bu baax a baax a baax Pape message bi jàll na mais Pape fi mu toll nii mën doxal. dama ko bëggoon defloo démonstration tuuti sax mu fàttali ko jamono comme que nee na jaar na ci mais bon comme que ci weeru koor nag naa ko ko jég naa ko. non non non loolu naa <laughs> ko léegi effectivement j'ai été champion en du de l'UA Sud de Sine Saloum le meilleur comédien et ma troupe avait gagné tout tout tout toutes les trophées yëpp ñoo gagné woon. <laughs> macha allah ku wax doyen Mbaj moo nekkoon mu ngi woon du dë Louga la dëkkoon. Mhm. ci euh, euh, benn troupe théâtrale dama fàtte troupe Mbaj moo ñu doon encadré au niveau de Gossas. Mhm. et quand on était bi ñu demee Kaolack on a on avait tout raflé. bon ça veut dire que quand mën naa ko daal mais bon pour le moment. kon bi tey def ko sa consultant. ci wàllu non kii kay sama consultant lay doon mais dafa am ñaar ñu ci plateau bi de Pape il faut nga wax leen ñu yow Aliou Sow ak Pape ak Pape Sané voilà. ayca kon ñu dem tàmbale ko ak Aliou. ñu bàyyi leen ak commencé. non woon. ci. kon en muy demee kon ñu dem ñu dem doon. en attendant muy demee ñu dem de. ñu dem Pape euh, lu encore waxtaan bi. surtout nag ci fi nga xam ne foofu la Babacar mujjee ak fa nga xam ne foofu la Moustapha euh, tàmbale woon wax ji mm-hmm. euh, mooy déjà su communiqué CNRA bi mu doon la nga xam ne dañ koy rafetlu mais man sama jàngat bi ma ci am mooy que euh, CNRA déjà moom ci mission balaa lii sax di am am na yu bëri yi nga xamoon mm-hmm. yi nga xam ne waroon na ko dénoncer parce que ci cahier de charge télévision yi mm-hmm. daf ci am li nga xam ne dañ ko sas télévision yi ci wàllu euh, éducation ci wàllu xamal askan bi ci wàllu boole askan bi bañ indi beddi beddi konte et tout loolu yëpp dañ ko ci boole ci cahier de charge ñu seetlu nag seetlu ko ci tele yu bëri ni que yi manquement yi ni day am te CNRA da ciy noppi du ci wax donc bu